ahlan bi shahri jotaayu koor ahlan émission la bu ngeen di ànd ak fadilatul ustaaz ak docteur Mouhammad Ahmad ngeen mën koo am ci DR Malo TV bis bu nekk ci weeru koor gi bu 19h jotee mën ngeen ko xaarit ci whatsapp wala facebook ci DR Malo officiel ngir ay leeral jokku leen ci numéro yi 77 713 82 82 wala 77 631 77 37 bismillahi rahmani rahim inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla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 woote yi nga xam ne arrahmaanu rahim borom bindeef yi borom asamaan ak suuf mi ngi koy woo ñi nga xam ne ñoo wax ne ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah muy ñi ko gëm ngëm googee nekk ci seeni xol jaar ci seeni làmmiñ ñëw ci seeni cër tey mu ne yaa ayuha alladina aamanu anfiqu mimma razaqnaakum min qabli an yatiya yawmun la bayun fihi wala xullatun wala shafaa walkaafiruuna hum alzaalimuun suuratul baqara aaya deux cent cinquante quatre ñaar téeméer ak juróom fukk ak ñeent ñi nga xam ne ñoo ko gëm ne leen anfiqu dépassé leen joxe leen mimma razaqnaakum ci lima leen wërsëgal ci li leen wërsëgal min qabli an yatiya yawmun lu jiitu bis di ñëw bis boo xam ne bu ñëwe laa bayun fiihi amatul njaay ak jënd waaw kenn mënatul am bénéfice ku ko amuloon du doo wala xullatun amatul ak xaritoo wala shafaatun amul ak tinu walkaafiruuna yéefar ya day humu zaalimuun ñooy ña tooñ tooñ gu rëy ñooy tooñkat ya yéefar ya day ñooy tooñkat ya lii la laay ji wax mbokki jullit yi kon ñu dikk xool meññeet mi nga xam ne danañ ko balalu ci laay ji tomb ba ci jëkk mooy al amru bil infaq yadxul fiihi al waajib wa tatawwu nee ngeen dépensé joxe leen joxe googi nag am na ci loo xam ne lu war la obligatoire la lu mel ne asaka am na ci loo xam ne coobarewu la lu mel ne sàkk salax ak yi nekk ci diggante bi yëpp te bari kon ñu xam ne joxe gim digle yaatu na lool lép loo xam ne yaa ngi koy yëkkati di ko rafetal di ko jëmale ci doom aadama moo xam dañ koo farataal ci yow wala farataaluñ ko ci yow jàpp ne loola lu baax la jëfe ko itam ndigalu sunu borom tabaraka wa taala la te daf lay indil tuyaaba ñaareel ba daf ne anfiqoo mimma razaqnaakum sunu borom tabaraka wa taala ci yërmandeem néewul anfiqoo ma razaqnaakum bu ko neexoon mu ne lu ma leen jox rek joxewaat leen ko waaye min jooji lenn la daf ne joxe leen lenn ci li ma leen jox joxe leen lenn ci li ma leen jox moo ko moom moo leen ko jox bu ko neexoon mu ne joxe leen lépp waaye nee na na ngeen ci jël joxe ci am nag loo xam ne dangeen koy dese ndax seen wërsëg la ñetteel ba moo leen wërsëgal moom sunu borom ba noppi digal leen ñi joxe loolu nag mooy maandute kon kum joxul woon du la digal ne la joxeel moo tax daf ne li yunfiq du saatin min saati kenn ku ne na joxe na la sa borom joxe kenn ku ne na ngay joxe na la boroom joxe ñeenteel ba yowmal qiyaama day amul lu ñuy tudde tabaadul tijaari min ay nawin kaan xatta fidaau nafs ku defat lu baax ba yowmal qiyaam xas ñëw maanaam ba faatu yowmal qiyaam xas ñëw amatul wecce gu ñuy weccee ci wàllu njaay naan jox ma lii ma jox la lee su amoon àdduna ak li ci biiram bëgg a jot boppam sax du sotti borom bi nee falan yuqbala min ahadihim milul ardi dahaba walaw iftada bi ku amoon bis boobee suuf si ba fees dell or nga ne dama ko bëgg a joxe ndax ma mën a mucc nee na du jariñ dara lii su ko nangu jaayante ak jëddante ak weccente ca booba bis weesu na kon laa bayun fii noonu la ko wax juróomeel ba yowm alqiyaamati la tanfau sadaqaat ay xaritoo foofa amatu fa jariñ xaritoo gu amul woon te fekk daa amoon ci àdduna te yàlla rek taxoon amul woon ba yowal qiyaam ma ne su fa doon sama xarit ndax su tuyaabee ma mën ci am déedéet bis la boo xam ne kenn ku ne day daw yawma yafirru al-mar'u min akhiihi wa ummihi wa abiihi wa saahibatihi wa baniihi li kulli imri'in minhum yawma idin sha'nun yughniihi bis la boo xam ne kenn ku ne dangay daw ka nga xamoon da daw sa mbokk di daw ñëpp ndax ragal ne yoreel nga ko àq joo xam ne bis boobee dana ko fayu kon ak xaritoo amut foofu xaritoo gay am daal mooy goo xam ne dafa amoon fii ci àdduna te yàlla kese taxoon ak topp yàlla bu boobaa moom seen xaritoo googee du soppi ko ak noonu moo tax al axillaau baaduhum yawmaidin li baadin ay noonu la doon ba mu des ñi nga xam ne ragal yàlla moo laloon seenu xaritoo juróom-benneel ba wala tanfau musaataat xaaral ma ñëw dimbali ji diw waaye xaaral ma ñëw waxal diw sàngam wala ma taxaw palaasam nekk avocat wala yu mel noonu yooyu amul njëriñ tinu ga fa am daal genn la mooy goo xam ne suñu borom tabaraka wa taala moo gërëm loo nit ba mu war a tàbbi àjjana gërëm loo keneen ay darajaam kawe lool mu ne ko kaay dugal kii àjjana wala kooka ñëw tiinul kooka ne ko kaay yëkkatil ma dama bëggoon nga yëkkatil ko darajaam ndax mu bokk fun dëkk suñu borom tabaraka wa taala defal ko noonu wala sax ma naa doon koo xam ne dafa yeeyoo sawara waaye faatuwaale na tawxiid am jamu yàlla bu baax koo xam ne ko yàlla gërëm loola ngir tawxiidam ak jàppam ci sunna mu tiinu ko borom bi tabaraka wa taala nag ay tiinu yoo xam ne nii ko nit ñi ci àdduna loola wóote na ak lay am foofu ci bis boobu sun borom tabaraka wa taala àggale laay jëne wal kaafiruuna yi ñooy tooñkat yi waaye néewul tooñkat ya ñooy yéefar yi ndax su ko waxoon lu diis a diis lay doon ci doomu aadama ndax doomu aadama daa mën a tooñ kon bépp yéefar tooñkat la waaye du caagi ne nag bépp tooñkat yéefar la kon wal kaafiruuna humu zaalimuun zulmu nag buñ ko waxee mooy jël dara teg ko fudul palaasam jël dara teg ko fudul palaasam loolu moo tax shirk nekk zulmu bi gën rëy ndax mooy jël la yàlla moom jox ko keneen ku dul yàlla loolu mooy tooñ gi gën a ci tooñ yi moo tax borom bi inna shirka la zulmun azim bokkaale ak tooñ gu réerée gu jéggi day xaq yàlla la jox ko mbindeef kon day mel ne loolu lañ mën a jukkat ci laaya ji tey di ñaan borom bi tabaraka wa taala mu nangul leen seen koor te nangul lu suñ koor di leen tàgg foofu ba ëllëg ci suñ jotaayu fukkeel wasalaamu aleykum bi shahri sawmi jotaayu koor émission la bu ngeen di ànd ak fadilatul ustaaz ak docteur Mouhammad Ahmad ngeen mën koo am ci DR Malo TV bis bu nekk ci weeru koor gi bu 19 jote mën ngeen ko xaarit ci whatsapp wala facebook ci DR Malo officiel